daa am làmb joo xamante ne dañ see jublu muy làmb Siteu Lac de Guiers. waaw Général ñëpp nee Lac de day daan Siteu. waa ragal naa li dal a Baldé si Modou Lô mu daan Lac de Guiers Siteu. jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñi fële seen Nouvelle Vision TV tey ñu too Serigne Saliou dinañ waxtaan ak moom ci actualité dinañ waxtaan ak moom ci ñaari combat yi xam ne ci lañ jëm rawatina ki nga xamante ni moom ku ko xam-xam ko ak Siteu mu nekk koo xamante ni dafay yàgg ànd ak Siteu di ko ñaanal ci ay combat yu bëree bëri te gis nañ ne dem Siteu doon na jàkkaarloog Lac de ci benn jàkkaarloo boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne Siteu dafa màndi wala ni mel waru ko woon mel wu Lac de Guiers balaa ñu dem ci combat Siteu nag moo bàyyi ma ne ñu continuer waxtaan bi sëriñ Saliou ñu ngi lay ziar. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokki àdduna yi salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi jëlee nuyoo bi suñu kilifa si mu Muntaxa Mbàkke Basiiru si mborom yàgg ko fi lool di ko ñaanal xalifa yëpp di ko ñaanal xalifa général yëpp di ko ñaanal suñuy xalifa si Abdoulaye mi nga xam ne moo toog xalifa maam si Issa Diène si yàgg ko fi lool di ñaanal suñu sëriñ si Abdourahmane Mbàkke si mborom yokk ay leeram si barke Seexul Xaadim am na solo trop Serigne gis na ne Siteu mi xamante ne yaa ngi ànd ak moom nekk na ci combat diggante bi Lac de Guiers Lac de Guiers nag nee na Siteu mënul jaar fem du ko daan balaa ma ñëw ci combat bu sax bëgg naa ñu continuer tuuti ci combat bi xam moo war a am suba mu ne diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène naka nga gisee combat boobu. waaw su fekkee ne combat Tapha Tine ak Eumeu Sène yàlla dafa dogal yàlla dafa dogal na ñun daa am làmb joo xamante ne dañ see jublu muy làmb Siteu Lac de Guiers waaye làmb jooju moom li ma leen wax moom mooy làmb jooju seetuñu ko. ah seetu leen ko waaw seetuñu ko parce que suñu combat ak moo ñu ñor parce que adduna bi yëpp dañ ne Lac de na gën a daan Siteu mhm. te loolu moom dafa dafa nekk loo xam ne Lac de Guiers gënul doon xale Siteu te bu suñu borom dogalee ne ëppul ñaan Siteu te ñun moom suñu borom dogal na si ne Siteu moom yàlla dafa dogal na ñun ba ñuy ànd ak moom nekkul léegi suñu borom dogal na làmb ji lépp loo xam ne tey tey kii na ko suñu borom dimbali nañ si incha allah dinañ ko ñaanal si borom may ko ndam surtout dafa wax benn wax démb mu ne Lac de yow ay galaaj galaaj yaakaar ñun course lan yaakaar ñun dañuy waaw dëgg la parce que ñun ñi man mi nga xam ne maa damay bokk naa si xam ne day ñaanal Siteu man Siteu mosuma ko jox galaaj mu sangu barke alxuraan karim si li ngay ànd Siteu yëpp mosoo ko jox galaaj wallaahi koo jox galaaj mu sangu dama ko ñaanal si sama course gii ay sarax yi nga xam ne gis naa ko man dama koy génneel incha allah rek ba suñu borom may ko ndam. incha allah am na solo trop balaa ñuy continuer bëgg naa ñu waxtaan ci cadre seet parce que ma war a ñëwaat ak yow ci combat seet ñu bët li la woo ci yu mel noonu di la parce que il faut ñu xuus ci mbiru Siteu Siteu dem ba mu ñëwee ak Lac de ak sañ-sañ bi ak force bi mu àndal wan ne Lac fu ma jaar da koy duma da koy daan bëgg naa xam ban façon seet ngay seet avant tout. waaw su fekkee ne wàllum seet doomu aadama yi seet daa suuf. am ñoo xam ne dañuy seet suñu ndox waaye man si sama kuréel gii si laay seet man lépp loo xam ne tey wax naa la ko si wàllu làmb yëpp si sama kuréel bi laa ko gisee man si kuréel laa seet képp koo xam ne tey foo mën nekk sa àdduna jox nga ma sa tur ak sa sant ak sa tur waajur bu jigéen ak santam ak foo mën nekk même boobu mooy yàlla sax suñu borom dama koy man damay seetal nit ba mu ne ma ba mu ne ma sëñ Saalum xanaa nit damaa wax sa say say soxla ma ne ko déedéet parce que man si turu yàlla laay seet te moom suñu borom dogal na ne képp koo xam ne tey woo nga ñu ju ñu di nga bëgg a xam si sa kanam as as sa ginnaaw yëpp incha allah ngi soob na suñu borom ginnaaw wax lépp si kàttanu yàlla ak mbaaxam am na solo trop danañ continuer ak yow ci dañuy gis parfois muy tax ay galaaj yoo xamante ni ñu bëree bëri daf leen di jaaxal fan la ko Siteu jëlee nga nekk koo xamante ni tey doo ko jox galaaj course ngay yor mais dañuy am ay galaaj yooyu faral di yor nga koy faral di joxe nag ay ndombo yoo xamante ni ñu bëree bëri miin nañ ko ci yow ñu bëri jàpp ne ñii def ko ñaawteef ñii dañuy bañ a dem kaso ñu bëri yàlla ni jox galaaj ndax loolu ànd nga ci. waaw su fekkee ne wàllum galaaj moom bi la moo nekk nii waaye képp koo xamante dama la jox. yaa ngi koy confirmé moo nekk nii waaye képp koo xamante ne dama la koy jox dama naan la su fekkee da nga jublu lu bon man man du ma la ko jox soo ma joxoon ay millions tamit war na xaar lu ma yaakaar xam na ne man ma la ko jox waaye képp koo xamante ne dangaa nekk bitim réew ñi ñi nga xam ne dañ ko dañ ko yittuwoo ñu si bëri sax bitim réew lay lay nekk képp koo xam ne dangaa nekk bitim réew yoroo kayit bañ loxo bis boo ko takkee incha allah moom a wala nga yor oto wala nga yor moto man ñooñu laa koy jox waaye ñi nga xam loo xam ne neexul yàlla man du ma leen ko jox incha allah si kàttanu yàlla képp kuy dund mbirum bantisme bu ñëwee doo ko jox man du ma ko jox parce que nit ki mën nga koo jox mu def si loo xam ne neexu ñu borom te ñun moom doxuñu si loolu waaye beneen ndam bi moo nekk nii képp koo xam ne da ngaa bañ ñu liggéey la waaye ñu kort la si si kaw suuf wala cat jàpp la incha allah boo ko jëlee ñetti gaaw la boo ko takkee incha allah si borom nees dimbali bu baax a baax a baax a baax mhm. bi tey moo nekk nii mooy ndamu tulli képp koo xam ne tey yaakaar nga moom dara bañ laa lor loo xam ne tey luy nduroo weñ la incha allah rek moom du la lor waaye xotti bi moom garantir mu ko kenn xotti bi moom sëñ dama koy wax garantir mu ko kenn waaye lépp loo xam ne muy weñ la si mbor bu ne musa incha allah si kàttanu yàlla am na solo trop euh, loolu lañ bëggoon nga jàllale ko ñu continuer ci waxtaan bi parce que it euh, ci la bokk parce que liggéey la mais dañuy gis ne Siteu démb bi mu ñëwee jàkkaarloo la dagee dafa mel ni ko mandi ñu bëri jàpp ne Siteu day mandi loolu moom tuuma la te te tuuma ju dëgg moom day yëkkati day yëkkati ay maqaaw doomu aadama waaye Siteu moom ñun moom am na yaakaar ne deretu xale mooy daw si moom moo tax muy doxal waaye Siteu moom ak ni ñu ko xamee wax dëgg yàlla moom loolu moom tuuma la te Sénégal moom ku fi bañ tuuma ku ne bul génn incha allah rabbi mhm. am na solo trop nu gis ne yaa ngi joxe ay kaaraange wane nga ko léegi mu nekk kaaraange yu am solo mais dañuy continuer ak yow ba tey euh, Serigne Saliou ñu bëri di am ay feebaru ngóor di la woo téléphone ngay jëflanteek ñoom di leen faj yan façon faj nga leen di faj. waaw su fekkee ne moom garabu ngóor bi moom moo nekk nii man képp ku mu képp koo xamante ne dama la koy jox man dama naan la ñaari jàngoro kese laa mën a faj muy ak Amérique képp koo xamante ni ngóor danaa jàpp mu muy wàllu tële kese te nekkul rab man garab bi garab bi ma lay jox traitement bi moom ñaari ñaari yi kase kese la ñaar yi mooy mooy traitement yi incha allah ngi sob na borom moom moom di nga mel ni xale boo xam tey eh, ñaar fukki at la képp ku ko tële képp ku tële jàpp te yow moo rab jàpp la incha allah rabbi si kàttanu yàlla di nga faj ba wér ñun moom su fekkee ne wàllu émiré bi moom émiré bu génn ak bu dugg si yemale bépp boo képp koo xam ne tey wàllu émiré dalaa dal muy bolam ma lépp incha allah rabbi moom buñ boo ñu jokkoo ngi sob na suñu borom gën di nga faj ba wér péng incha allah rabbi si kàttanu yàlla nga baaxam am na solo trop dañuy continuer ak yow ba tey ñu gis ne am na combat yu fi jot a jàll euh, rawatina ki mel ni Modou Lo waxoon nga ci mais bëggoon sax xuus ci combat am mais danoo gis ne moom du takk galaaj wala daf ko bàyyi sax liñ sañ wax parce que gis na ne combat bi takkul galaaj ndax loolu mën na nekk nit mën na ñëw ci stade bëre ba pare am kaaraange bu ko aar te du takk galaaj. waaw loolu mën na am parce que su moom wàllum galaaj bi am na galaaj yoo xam ne moom dañ dañ la koy bindoo naan takkale waaye galaaj gi daay bi daan mbër nekkul moom ngay takk. gala bi daan bër nekk moom ngay takk Modou Lo su ma gisee nit ñi ne indiwut gàllaaj man affaire bi man man damay jaaxal na Modou Lo ñaan na la si combat bi combat yi mu yi mu jot a am yëpp si si combat bii nii nii nii nii la si gën a ñaanlu moo tax nit ñi moom xam la ñuy gis muy muloo Lo beneen benn gàllaaj waaye Modou Lo sangatu na gas na suul na mhm. man foofu laa mën a yem su fekkee ne waa ñooñu moom fa laa man a yem wax dëgg yàlla mhm. incha allah rek am na solo trop dañuy continuer ak yow ba tey dañuy gis ñu bëree bëri euh, di bëgg am jëkkër du mën a am jëkkër balaa ñuy continuer parce que Siteu moo tax ñu a tax ñu war a waxtaan mais ñi bëgg am jëkkër du am jëkkër yan façon téere nga leen defal wala lan nga leen defal pour ñu mën am jëkkër ci lu gaaw. waaw su fekkee ne moom su fekkee da nga nekk jigéen goo xamante ne da ngaa taxaw muy luy luy tuddee lamb incha allah rek moom bu la seetalee su fekkee ne dañ liggéey su fekkee laa liggéey dañ la koy dañ la koy wax su rab la ñun duñ fekk rab moom duñ ko faj. ah du ngeen faj rab waaw waaw man man moom rab moom du ko faj rab du ma ko faj waaye su fekkee na suñu borom moom war naa euh, dogal na si si si sa jëmm ji nga nga war a am borom kër incha allah li lay jox fukki fan ñett nga koy sangoo incha allah balaa yàgg lool suñu borom dina jàppandal jëkkër joo xam ne jëkkër ju gën si àdduna la incha allah. Mhm. si kàttanu yàlla euh, na solo trop dañuy continuer yow ba ci mbiru jaaro yan façon jaaro ngay joxe. waaw su fekkee ne wàllum jaaro moom képp koo xamante ne dañ ko jox moo nekk nii koo xam ne dañ la koy jox dañ lay xoolee couleur ba ban couleur ngay sol bu la ko xoolee ba pare dal la koy jox jaaro bi day dox si kaaraange jaaro bi day dox si bayre jaaro bi day dox si loxo bënn te jaaro bi képp ku ko takk incha allah bi say moom si kaw rek lay jëm incha allah rabi waaye képp koo takk tamit du yàlla tamit moo koy toj. incha allah ah mooy yàlla da koy yàq. waaw mooy yàlla mu mu wàllum njaaloo xam mooy yàlla bu nga waxee daa bëri ay façon mais képp koo takk di njaaloo wala nga ànd ak sa loolu moo koy toj incha allah yàlla mbaa am na solo trop. continué ak yow ba tey dañuy gis jigéen yu bëree bëri dañuy nekk góor ku jëg si ay góor ki war leen maanaam mbirum nopp yan façon nopp ngay nopp. waaw su fekkee ne wàllum noonu la man moom bokkuma ak ñi nga xam ne danga leen di woo na leen damaa bëgg a jub takk diw wala damaa bëgg a jub ak diw ñu liggéeyal la parce que man noot bi ma lay nootal su ma ko defee gudd gudd alxames bala ba bis bee si ngir soob na suñu borom parce que doomu aadama moom lépp lay wax na nga xool sa diggante sa borom parce que ñaan moo nungu si suñ borom la la dépendre mais képp koo xamante tey woo nga ma dama lay laaj ba xam na ndax lu baax nga si jublu su fekkee da nga am borom kër ma xam su fekkee ne danga am soxna soxna da nga bëgg a takk ma xam su fekkee ne da nga nekk jigéen bëgg tamit sa borom kër jox la bopp ma xam parce que wàllum noot dafa dafa nekk loo xam ne dafa doy waar ma parce que mën ngaa jubale nit ki ba mu ba jox ko bopp mu koy fawee wala mu koy mu si def loo xam ne neexul suñu borom te fekk bàkkaar boobu moom yow moom bu si amee benn si am fukk te incha allah rab ñun daam daam foo xam ne dama faa bokk moo tax lépp loo xam ne lépp loo xam ne tey dañ koy def dañ si xool suñ diggante suñu borom moo tax wàllum noot képp koo xam ne tey dama ma see woo nekkul may woor a ma liggéey man bala ma laa liggéey ginaa ginaa xam bu baax a baax la nga si jublu ba pare teg la ay sart incha allah si kàttanu yàlla mbaaxam am na solo trop mbirum mbirum papier aussi lan nga si jigéen waaw su fekkee ne wàllum papier moom moom ñi nga xam ne doo nekk bitim réew ñu si bëree bëree bëri képp ku ma si liggéeyal da nga may boole keneen ndax wàllum papier moom man ñi may woo ñu si ba dem naa sëñ bi sangu naa sangu sangu ba sonn gisuma dara dem naa si si si sëriñ bi ba sonn gisuma dara te fekkee ne wàllum wàllum ñaan yàlla général foofu dinaa fa ñëw tuuti parce que ab sëriñ warul di wax loo xam ne nekkul dëgg ab warul njaaloo ab sëriñ warul lekk lu araam parce que yooyu yëpp boo si def bu ne rek mënoo ñaan lu suñu borom nangu waaye ñun moom képp koo xam ne tey wàllum papier da nga koo bëgg boo ñu woowee ba ñu ko dan lay seetu ba pare parce que doomu aadama bi yow xam ne da ngay ñaanlu sa yaram mën naa tax mën nga def bàkkaar yoo xam ne tey nit mun laa ñaanal bu la xoolee ba xool ba xam la ma war a yàqu yàq yi ba xam cat la war liggéey la wala sa yaram dafa dafa tilim bu ñu paree dan lay jox sangat yi nga nga sangoo ko incha allah ngir soob na suñu borom su fekkee ne kër boobu noonu gëm na si yow incha allah rabbi boo ko déposé si borom bi ne la ko may ngir na yàlla incha allah am na solo trop ba ñu jógee ci mbirum papier mënul ñàkk ñi waxtaan ci leneen sëriñ Saliou koo xam-xam ne dafay liggéey jigéen ñi xam dañu të am doom ku të am doom. waaw jigéen goo xam ne tey da ngaa taxaw lu yàgg amoo doom man moom sama wooyee dama naa ndax dem nga hôpital yaa sa borom kër yëpp fekkee dem nga hôpital gisuñu dara dama dama la koy seetal su ma ko seetal ba pare incha allah li ma lay jox yaa sa borom kër ku nekk da da koy naan yow ko jigéen ki am na loo xam ne da nga koy takk. incha allah gis su fekkee ne si mborom sàkk na si yow nga war a am doom si suuf incha allah rabbi ngir soob na si mborom du yàgg dara si mborom dina la may nga toll diggante si kattanu yàlla nga baaxam incha allah parce que loolu moom si mborom defal xam ne tey jox nañ ko ñu bëree bëree bëri ñoo xam ne tey si mborom jàpp nañ leen ñu am ay tuut tànk incha allah rabbi parce que loolu moom suñu sëriñ si Abdourahmane Mbacke si moom lañ ko jëlee woon incha allah moo tax képp koo xam ne jëflante nañ si incha allah rabbi moom si mborom gi la may tuut si kattanu yàlla nga am na solo trop lan ngay tàggatoo waaw li may tàggatu ko mooy doomu aadama yi nga xam ne comme ñaan gi may joxe tey lee samedi incha allah rabi képp koo xam ne tey da am bàkkaar loolu ko am lépp nit kuy dox si si kaw suuf muy bàkkaar boo yëg ak boo yëgul yëpp incha allah naafale gi eh, ñetti ràkka la incha allah rabi si kàttanu yàlla mbaa xam képp koo xam ne tey da ngaa jul tàkkusaan ba pare da ngay def fatiha juróom ñaari suratul ixlaas ñaari ràkka sëlmal def ko ba mu nekk ñetti ràkka nga def astafurlaay téeméer ñaan suñu borom ak njéggal képp ku ko def bàkkaar boo xam ne tey def nga ko incha allah rabbi suñu borom dina la ko si kàttanu yàlla su fekkee da nga ko defal tamit sa sa waajur dafa dafa génn àdduna nga ko ko suñu borom ko jéggal wala sa xarit parce que doomu aadama moom ku si nekk war ngaa fi daaw si bopp fi daaw bëri na ay façon 12000 bisimilahi rahmaani rahim tamit képp ku ko def suñu borom jéggal na la bépp bàkkaar ba ma ba ma sa def si kaw suuf te incha allah boo faatoo gina la may kër kër si àjjana muy loolu moom moom la ñuy mayee di wax doomu aadama moom képp koo xamoon tey yaa ngi dox si kaw suuf war ngay saraxe ngir ngir jëm yàlla parce que sarax moom nekkoon loo xamante tey nekkul dangay dem si si sëriñ rek mu wax la nga génne ko képp koy dox war ngay fanaanoo su fekkee ne sax benn benn paquet de la sax nga génn ko sarax ko ngir jëmm yàlla incha allah di ñaanal Sénégal suñu borom def si jàmm di ñaanal ndaw ñëpp ndaw ñi nga xam ne dañoo sonn di di ñaanal suñu borom defal ndaw ñëpp jàmm di ñaan suñu kilifa yëpp jàmm di ñaan suñu waajur suñu borom yëre ko taxare ko àjjana di ñaan si Abdourahmane Mbacke mi nga xam ne mooy suñu wasila suñu borom yokk ay leeram lool di ko ñaanal di ko di ko ñaanal kilifa yëpp di ko ñaanal kilifa diine yi nga xam ne tey ñoo fi nekk suñu borom yàggal leen fi lool si barke alxuraan karim